jot nañ toogee préfet. parce que lan moo tukkee boobu lay bi ñu toogee préfet préfet préfet def ñu ne léegi nañ fexe ku am ku am kër di nga di nga fexe sàkk bunt léegi nañ fexe au moins ñi dégager benn 6 boo xam ne nii maanaam waa ji dina mën a dugal di génne su ko neexee su bëggee tabax ñu ne ko ñun bañuy loolu cantine yi yaa 49 pourquoi kon léegi ku soxla moom mu soxla 6 rek mu dajji 49 cantine pour lan 6 mètres rek pour dugal engin. pour dajji wala pour génne nga ne déedéet damay profiter damay dagg périmètre bi yëpp pour waa ji am visibilité bu baax pour son confort loolu fan la ko teg da yeneen cantine yëpp mu ngi fi ba rond point Sandaga cantine yaa ngi fi léegi euh, bi ñu nekkee si euh, pour parler yi ñi dem fa toog léegi mu nekkoon dina woo pré dina woo euh, commerçant yi woo borom kër gi woo mairie ak commerçant yi ak kat ñu toog Euh, mais le lendemain euh, mu génn ci loolu. moom préfet moom préfet mu génn ci loolu. mu jigi parce que ñu doon communiqué. ok ah, ñu doon ñu communiqué am na ku mu doon wootal téléphone ci suñu mm, groupe ma koy nuyu Artiam imam léegi bi nga ko defee moom mu génn ci loolu génn ci loolu mooy def ñuy wallax problème bi nañu léegi dem leen ngeen seeti borom kër gi léegi. ah déet avant mu naan leen dem leen dafa nañ toog. yéen ñëpp yéen ñëpp ngeen ñoo toog moom daf ñu promettre xam nga euh, premier jour bi gars booy dañu nekkoon en moom dafa njëkk ñaan ne leen nañu gars yi bàyyi leen grève bi wax leen booy ñu bàyyi ay dem di dajaloo si place yi ñu leen amul benn problème parce que booy dajaloo si site bi ñoom li tax ñu ko doon def euh, kenn waxu leen dem leen dajaloo fi mais dañ xëy comme fi nga naan liggéey yow yow fekk nga fi ñu leeree dee foofu rek nga mën a jooyee yow fi nga naan liggéey chaque jour nga xëy ñëw ñu ñu dajj ko mais foog nga mën a toog jooy jooy sa jooy jooy lamenté si dara léegi suñu fa lamenté woon dañu fi dañu fay mat benn cent wala cent cinquante personnes léegi nag su ko defee nag loolu la préfet wax ne nañ wax booy ñi dem ñu leen amul benn problème ñun jàmm rek lañ bëgg booy leen leen wax ñi dem toog xaar ñun def médiation bi léegi nag bi ñuy def médiation bi préfet ne léegi moom nañ xaar moom dina woo borom kër gi ak miir ak ñun ñu toog pour ñu seet ban voie la ñu dégagé pour sampaat yeneen cantine ñu ne d'accord léegi mu xëy nañu léegi yéen léegi alors yéen dem leen seen bopp ngeen gisal borom kër gi borom kër gi day bañ. lu ngeen njortu ak yéen bi ngeen xaymaa seen yàqu-yàqu beeg yooyu. waaw ndax am ngeen valeur estimé ngeen. waaw waaw am nañ valeur. yow ku si ne cantine bu ne mun na def dix à cinquante millions. dix à cinquante millions dix à cinquante millions na nekk si cantine bu ne. sans compter la valorisation de la la jaay si quarante neuf cantine. quarante à cinquante millions mën na fa dem yow montre ay montre de classe dafay am am na yëre yoo xam ne dafa ay yëre turki la dafay cher dix à cinquante millions minimum benn deux milliards yàqu na fa par rapport ak valorisation bi bagage